daanaka sax romb na juróom fukki candidat yoo xam ne ñoom nee na daal dañoo samp seen dënn ci élection bile waaye ñoom ña nga bàyyeekoo ci nga xam mooy majorité présidentielle ñii nag moom bokk ci ku jéggi am ñoo xam ñii sax bokkuñu sax ci nga xam nii ci ku jéggi wala sax ci nga xam ne mooy ña nga xam ñoo gën a ëpp doole maanaam ci pouvoir bii waaye ñoom daal ay grand courant lañu waaye ñoom nag dañoo daal di bëgg a samp seen dënn rek ñii nag moom bëgg a natch maanaam li nga xam ne kat mooy parrainage bii dina ci liggéey liggéey bu am solo ndax candidat yi ñu jéggi étape bi dara wooru ci ñu bëree bëri ñoom daanu romb naam ci yaa parrainage citoyen bi am ñoo xam ne sax duñ koy séen waaye tam ñu bëree bëri yaakaar naam parrainage citoyen la kon ginnaaw euh, jafe-jafe boobu nag am ñoo xam ne kat bëgg nañ ci nii mbaa ci ne bokk ci kon ñuy duppee le primo candidat ñoom nag mooy lu njëkk ñu daal di euh, xuus ci li nga xam kat mooy élection bu ni mel waaye am ñoo xam ne daañu jàpp ne seen gox nag moom kenn du fa joxe li nga xam ne parrainage ndax ñoom ñoo ko moom moomal seen bopp ngir ba ñu wax rek ne ay titre foncier la kon tam yéeme na lool candidat yi nga xam ne seen ëpp na juróom fukk ñoom daal remplir conditions yi nga xam ne moom la waaye nag am ñoo xam ne kay daañu jàpp seen bopp yu xuwalu am ñoo xam ne daañu mere ku leen deful dara waaye ñu gis tamit naam sax am na ñoo xam ne daanu gën a jege li nga xam mooy mouvance bi am ñoo xam ne kat daañu waxtaan ak ku jegi ndax buñ deful nànk saa bu leen najee ci parrainage bi daañu seet naka la ñuy lëkkaloo ñi nga xam ne kat ñoom seen parrainage mat na waaye tam ñu daaj leen mujjee validé kon lépp daal mi ngi jaarale ci lii nga xam ne kat mooy ngawti ngawtee buñ koy amalee am ñoo xam ne la leen neex mooy coow lu ci bari rek loolu sax mooy charme présidentiel waaye tamit wàllum waxtaan ci suuf da ciy am kon illa ji dëgg mooy ndax ñi daañu romb ndax ñii daan leen recalé waaye tamit mën nañoo xaar ne mbetteel am foo xam ne dañ ko faa yaakaar waaye tamit ak lu mën di xew daal charme naturel ci élection présidentielle bii mooy ku ci nekk daal bëgg nga sàmm sa nënd waaye buñ deful nànk rek daa di tàbbi ci ndëgg sarax